seen gàmmu jeex na. Baye ne seen jeex na. yonent bi bëgg na ci gàmmu gi. yonent bi sallallahu na ci gi. alhamdulilah loolu la jëm. yonent teew na ak guddi gi lépp. yonent bi teew na ak ñun ci guddi gi lépp. ak mbég mu rëy rëy rëy. ak mbég mu rëy mu rëy mu rëy. gis gis na ko. ku gis yonent bi gis nga suuf suñ tee. ku gis yonent bi suñ tee yaa ngi koy gis. ku ko gisu tit moom gis na la. ku ko gisu tit moom mi ngi lay gis. su ko bët yi gisut. bu fekkee ne bët yi gisu ko. ngeen wax ngeen waxee rek ma noppi leen. noppi leen bari yëpp ngeen waxee tegu noppi. comme ay am noppi leen. ma ne ku ko gisut itam. mu ne ku ko gisut itam. moom gis na la. moom gis na la. ndax ñëw na fi te tey gis. ndax moom bàyyi na. te tey gis. ndax moom. bàyyi na ñëw na fi. te it day gis moom la ci ñëw. ma ne soo ko gisul ci sa bët. mu ne boo ko gisul ci say bët. sa jëmm ji moom gis na ko. sa jëmm ji moom. gis na ko xaqal. lu taxaw ci géew bi fii. xam ngeen ne lu taxaw ci géew bi fii. jëmm ji nee nga jàkkaar rek moom bu ko sa bët gisul sax. jëmm ji nee nga jàkkaar rek moom. di ne sa bët gisu ko it. war na am. nag yonent bi ko naan